Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen dara seen chaîne YouTube Ben Makhtar comme ni ma leen ko diggee woon rek tey suma jumul xam naa mooy juróom-ñaareelu secret yi ma leen waroon jox comme seen diggante yi dañuy continuer nag di leen jox secret yu jëm seen wàllu kaaraange ubbeekaay dégg nga euh, wàllu accident lu mu mënti doon daal loo xam ne daal lu jëriñ demee aadama la su ngeen man teglante juróom-ñaari fan di la jox ay secret c'est parce que euh, dama fay nekk pour yéen pour dimbalante ay yéen waaye chaque jour message yu ñuy jot ak appel yu ñuy jot ak ndimbal yu ñu nit ñi di ñaan yëpp si côté diggante yi si si la gën a bëri moo tax ñu leen indil yooyu waaye ñun dañ fay nekk pour si lépp lépp lu ngeen bëgg rek am na fi mu ne leen koo jox waaye nag wàllu nopp ak wàllu dafa diggante dafa xaw a jafe parfois da ngay def doo gis parfois nga def ñii dañuy def dañ gis ñii dañuy def gis kon nag mi ngi noonu moo tax ñu leen si jox yu bari bu ngeen tenté bii demul ngeen jël beneen incha allah waaw mais yii nag dafa nekk euh, benn mbir mu am solo boo xam ne dama leen koy leeralal muy xobu puftan xobu puftan yu jël bind si ay ay aaya ak am nañ koy liggéeyee si turu ñaar ñi nga xam ne ñoo bëggante ñi nga xam ne ñu ngi sentir ne da leen liggéey wala da leen a dëddale wala da leen def seen diggante loo xam ne si ne nii maa la day taali ba mënu coon déggoo loolu moo sabab surtout sax liggéey bu ñuy liggéey si poftan bi te ñëpp xam nañ poftan doole ju mu am day toj liggéey sax buy nekk si nit waxuma laa nag liggéey bu ñu def si ñaari nit da koy toj moom la bind am aay yu ñu ko bindee am xawaatim yu ñu ciy def diggante ñaari nit ñooñu ñu bëgg a boolee ba pare itam génnee liggéey bu nekk seen diggante dégg nga mooy ñaar ñu bëggante moo xam ay xarit moo xam ñaar ñu bëggante di sëy moo xam ñaar ñu sëyagul te bëgg a sëy Euh, buñ ko liggéey pare nii dañ koy wal da ko sunguf sunguf lay mujjee nekk léegi nag kooku da koy suuroo da koy suuroo andi cuuraay ko suuroo ki nga xam si nii maanaam moo bëgg dëddale bi si diggante mook ak ki wala mook ak ki nga ne moo bëgg ñu ne si jàmm di ko dana yokk mbëggeel seen diggante dana delloosiwaat niñ meloon mbëggeel bu amatoon seen diggante dinañ si am da koy suuxat lu am solo la waaw waaye nag dafa neexut expliquer ndaxte da ay ay alquran yu bind la ak tam xawaatim bu ñuy bind si musallas xawaatim musallas moo tax dañ leen koy présenter rek pour ñi nga xamante ne ñu ngi si jafe-jafe yooyu noonu te mu dëgg nag laa wax te mu dëgg nekk lu jub nekk lu baax biñ ma bu ma buñ ma buñ ma wooyee wala ñu yónnee message sama numéro whatsapp kon mu leen koy waxee rek ku ma woo jotuma daal dama bàyyi message sama whatsapp tôt ou tard dinaa ko liir su ma ko liiree nag wala nit woo ma téléphone ñu waxtaan ma xam kii li muy def nii farata la te lu baax la ci jublu seet naka la ñuy def mën koo dimbali ci loolu dégg ngeen incha allah te ngeen xam ne itam ba tey nekkuñu ay sëriñ li ñuy def nii defuñ ko nekkuñu ay sëriñ ku ñu wo jotuñu mu comprendre ñu xam ne si beneen liggéey lañ lañ ne dégg nga waaw kon euh, dañ leen itam bàyyi xel ñi nga xam ne ñu ngi nekk seen kër ñu si sul ay liggéey gis nga yi ay liggéey yu ñuy suli la ñëw si kër ëtt wala euh, fenn si kër gi fekk suul nañ fa ay liggéey parfois ñaari ñu fay sëy duñ am jàmm wala waa kër gi duñ am jàmm wala ñu suul ko fa ñëw pour yàqal borom kër gi lu si nekk am na si am na ñoo xam ne dañuy ñëw seen kër rek jël karo duñ sax xool dañuy ñëw rek jël karo balaa nga karo sa kër ëtt bi yëpp lépp da ko war a sulli xool ba xam est que am lu fa ne nga doog ko nga a na yoo xam ne tam yu ñuy suy la si kër ay saafara yu ñu fay wis wala ay euh, sunguf yu ñu fay wis nga xamante ne lépp lu fa nekk moo xam ay liggéey bu bon wala demee dafay dafay toj képp ku fa def liggéey moo xam ne dañ ko faa suul dafay toj loolu ngeen bàyyi xel dama leen prêter seen attention si loolu bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax lii nag comme li ma leen wax rek ñi ko soxla ñu déggoo dinañ xool naka lañ ci mën a def incha allah waaye nag secret bi ma leen bëgg a jox tey mu jëm si wàllu diggante yi li ngeen di gis seen écran yi di waaju ñëw waaw mooy li ngeen gis nii da koy bind. bind bi ci kaw bokku ci li ci digg bi rek moo ci bokk li ci digg bi ngay jëm nga bind ko boo ko bindee nag ba pare yéen a ngi gis fi ñu def ci yaatii yaatii mooy bu nekk seen càmmoñ carré boobu noonu lim ngay bind nag mais carré boobu ma bind yaatii foofu ngay war a dugal espace boobu ma bàyyi foofu ngay war a bind dugal turu nit ki ak turu yaayam ki nga xam ne moo dem mun naa nekk sa doom mun naa nekk sa jabar mun naa nekk sa jëkkër mun naa nekk itam sa rakk wala sa mag ko mënti doon nga bëgg ma dellusiwaat nga bëgg mu ñëwaat su boobaa da ngay bind xawaatim bi nii rek fi ñu def yaat yi nga def fa turam ak turu yaayam soo paree nga tëj ko après nga lem ko ba mu nekk kayit nga takk ko sa buntu nekk wala sa buntu kër wala nga suul ko si kër gi su ko defee incha allahu rabbi kooku yàlla dina ko gindiwaat bu neexee yàlla suñu borom ba mu ñëwaat si ni nga ko bëggee incha allah. te ngeen di fexe di jug def seen kéem kàttan parfois diggante yi dina yàqu te dara yàqu lu du ay def-def même cat rek mën naa yàq diggante cat. ak di gis ay nit ñuy ànd nit ñi di si wax di si wax ba diggante ba mujj du mujj du mujj neex wala am na ñoo xam ne moom dañoo ñeme yàlla dañuy jug du ci def ndaxte su ma leen waxee rek dafa am fu mu ko teg ndaxte man nit daf may woo damaa bëgg diw ak diw ak diw nga séparé leen damaa bëgg nga na xam nga yoo xam ne daal daanaka nit ñi am nañ sañ-sañ bi kon ngeen xam ne nit ñi am nañ sañ-sañu di séparé ay nit waaw te duñ ci gagné dara nag lu dul neex leen rek kon bàyyi leen xel diggante boo nekk moo xam sa jëkkër sa jabar ki ngay bëgganteel sa patron su mag sa rakk sa kër sécuriser lépp nit ñi bi ñu amee fulla ak fayda di def si yow yi amel fulla ak fayda itam di def sa bopp dindi lépp lu ne si yow te nit ñi moom fi mu nekk nii dañoo doy waar maa ngi lay koy xel lépp loo yaakaar ne sañu ko sañ ko waaw man mi di wax ak yéen xam naa li mu leen wax kon bàyyi leen ko xel ngeen jug seen bopp balaa muy taar tard ngeen def seen bopp ay kaaraange aar seen diggante yi aar seen kër yi aar seen doom yi lépp. yàlla nag mooy aar yal yàlla boole ñu aar ñu ñëpp sàmm ñu kon ñu ngi yem fii di la jox di daje ba suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.